Euh, ñu ñuy topp sa su ñu ngi am mbégte waat di dellusiwaat rek comme ni ñu leen ko diggee woon ci ñaareelu pàcc bi def benn euh, njàngat sur le plan euh, maanaam situation géopolitique mondial nga xamante ne ni actuellement ak yi nga xam ne moom moo ci am ak yi nga xam ne moom la ñuy préparer ak jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ doon utiliser ci guerre yu njëkk ak yu mujj yi tey te ngeen gis li xew Liban. muy euh, maanaam guerre cybernétique euh, bu électronique boo xam ne Israël daf ko mëne ci euh, contre Hezbollah ba mu faagaagal foofu lu mot fukki nit ak benn waaye aussi gaañ fa lu mot deux cent deux mille sept cent cinquante personnes donc mu nekk lu ñu poussé pour ñu def benn jàngat maanaam histoire guerre lan la ak jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ ci utiliser ni mu changé. donc loolu nag mu nekk loo xam ne euh, lu doy waar la parce que xam ngeen euh, doomu aadama euh, depuis bi ko yàlla sàkkee dafa nekk koo xam ne depuis ci préhistoire nga xam ne sax bindaguñu histoire maanaam avant Hérodote di ñëw ci quatre cent vingt cinq avant Jésus-Christ loolu la ñu tuddee préhistoire nga xam ne ay légende moo doon am. ak euh, li nga xamante ne ni yeneen sardiyaat ay narratif yoo xam ne ci conte ak leneen lu demee noonu ci la doon jóge donc euh, mu nekk loo xam ne guerre ak jafe-jafe xuloo dafa yàgg nekk loo xamante ne ni euh, ci doomu aadama ci jëmu boppam waaye doomu aadama ak moroomam loolu nag dina indi souvent bu fekkente ni état la Euh, mën na indi euh, loo xam ne état de conflit la mooy ay nisaat ay xëccoo yoo xam ne mën na dem ba arme judd ci soit mën na nekk groupe politique yoo xamante ne ni mu nekk ay état ay entité euh, juridique état wala mu nga xamante ne ni par opposition mu nekk ay guerre entre état comme ni ko waxee nii wala aussi guerre aussi comme mën mën na aussi désigner conflit muy nizaa xëccoo boo xam ne armée lay doon entre ay population faction ci ay population ci benn dëkk wala ci beneen dëkk mën nañoo wax guerre de religion xarba euh, diini euh, diiniya wala xarba muy ger civile xarba madaniya euh, comme ger ethnique xarba isniya wala guerre révolutionnaire muy xarba thawriya wala guerre de sécession muy xarb boo xamante ne ni pour euh, euh, euh, inqisaam la mooy am indépendance walla leneen lu demee noonu donc gis nga mu nekk loo xamante ne ni day wone ne l'humanité musul maanaam ci lii maanaam li nga xam ne souvent mook boppam la mook mbokkam la wala ci clan ci tribum wala ci fi nga xamante ne ni suufam ak ñi nga xam ne ñoom la ko séqal mun na leen boole ay intérêt lu mel ni bu njëkk ba ndox foo xam ne kii day am si jur euh, ndox amul mu indi problème walla suuf mu indi problème donc loolu lañu ñu mën a mën a toujours assister loolu moo jur nga gis ci Haabil ak Qaabil loolu moo njëkk am di nga xam ne mooy conflit boo xam ne dem na bi jur conflit armé moo tax euh, boo demee ci verset 27 ci suratu euh, maida di nga gis yàlla ne watlu alayhim naba ibnay aadama bilxaq is qarraba qurbaanan fa tuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al axari qaala la aqtulannaka qaala innama yataqabbalu minal muttaqin mu ne xanaa jàngaluñ la euh, nettali la li nga xam ne moo amoon diggante ñaari doomu aadama yi haabil ak qaabil haabil ak qaabil bi ñu jotee kii dafa nekk sàmmkat kee nekk euh, euh, agriculteur muy koo xam ne day day bay léegi nag bi nga xamante ne ni yàlla wax na ci ñoom ku ci nekk ci li muy liggéey na ko ci jox qurbaan muy offrande loo xam ne pour mu jege ña jege ko moom borom bi comme genre sarax kenn ku ci nekk indi ki nga xamante ne nii moom moo doon Baabil moom moo doon éleveur moom moo doon ki nga xam ne moo doon sàmm Haabil mooy ki nga xam ne moo doon agriculteur bi léegi nag bi nga xamante ne loolu am na yàlla ne eh, maa ngi lay nettali ñaari doomu aadama yooyu bil xaq ci dëgg parce que histoire dafa am histoire yoo xamante ne ni comme ni ma ko waxee ci légende ci ay mythe mythologie euh, ci ci ay sardiyaat ay narratif récit narratif mën na nekk dëgg mën na bañ a nekk dëgg ci ay conte ay léeb ak lippoon yooyu yëpp te histoire bu njëkk ba dafa nekk une histoire boo xam ne orale waaw ci la ñu dem ba indi lu ñu tuddee histoire analytique bi ñu passé ci événementiel indi analytique nga xam ne day laal sociologie pour man analyser les faits am ci njàngat bref ci biir loolu la ñaar ñooñu euh, bi nga xam ne yàlla wax na leen nañu def lu ñu war a def euh, euh, ba ñu def ko yàlla nangul ki nga xam ne mooy ki yor maanaam habil habil nag xaabil mer ci loolu ci liñ ko nangulul fa tuqubbila min ahadihima ñu nangul kenn ci ñoom walam yutaqabbal min al axar nanguluñu keneen ki ci ñaari frères yi beneen frère bi ne ko qaala la aqtulannaka dama lay rey gis nga ko waaw qaala innama yataqabbalu llahu min almuttaqin keneen ki tontu ko ne ko yàlla nag moom buy nangu jëf jëf bu nga xam ne dafa tegu ci lu ko ci ragal ko waaw maanaam bu ànd ak précaution jox ko gëdd waaw moom la yàlla ji nangu gis nga kooku mu nekk loo xam ne yàlla moo la koy eh, eh, jàngal pour que nga gis ko eh, mu nekk loo xamante ne ni c'est un fait boo xam ne pour woon la dafay campé ne nekkati nit ki ni ko yàlla sàkkee dafa ànd ak violence mu nekk nag violence boo xamante ne ni eh, de faible intensité la wala de moyenne intensité te wala de grand de grande intensité yóbbu ko ci guerre ñu nekk mbooloo mu mujj nekk guerre mu indi destruction mutuelle entre ñaari groupe donc gis nga loolu dafa bokk ci ci nit boo demee même ci suuratu Euh, ba tey euh, euh, baqara di nga gis na yàlla fi muy wax naan ci verset deux cent quarante quatre wa qaatilu fi sabilillahi waalamu anna allaha samiun alimun maanaam dee leen xeex ci yoon yàlla waaw gis nga wa qaatilu reyante leen waaw reyante leen ci yoonu yàlla te xam ne yàlla dégg na lépp aji dégg lépp la aji xam lépp la combaté c'est-à-dire travailler donc sur le chemin pour la cause de Dieu et sachez que Dieu entend tout et il est omniscient donc mu nekk loo xam ne lu am solo mu ñëwalaat la verset deux cent quarante six ba ci deux cent soixante quatre mu lay wax histoire maanaam euh, euh, euh, bani Israël. entre euh, Jaalut ak euh, ki nga xam ne mooy euh, Daoud waaw David contre Goliath nga xool sol moo nekkoon premier roi ci bani Israël deuxième roi bi mooy David histoire bi xam naa ne dinañ ko mësa a aborder ji gis nga bi nga xamante ne ni Goliath sonal na ñi nga xamante ne ni mooy israélite yi ba kii moo ràngu xeex bi Eh, kii di David gis nga loolu xeex boobu moo indi ba bani Israël am doole bi mu am ci kaw kii nga xam ne ne ni moo doon Goliath mu nekk eh, eh, loo xam ne lu lu lu am solo la donc foofu ba aussi boo xoolee ba ci verset maanaam loolu aussi toujours xeex la maanaam conflit d'intérêt yoo xamante ne yu am la donc loolu mënul ñàkk li ñu jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm balaa nga ko mën il faut que nga am xeex. waaw parce que bu dee ci même ci nit nii il faut nga souffrir il faut nga am ay difficultés il faut que nga nga nga nga nga am foo aw ba mën a àgg fi nga xamante ne ni mooy ci ngay am félicité am réussite am succès parce que la réussite c'est la somme des échecs foo gis ku am réussit rek aw na ci ay échecs yu baree bari muñ na euh, naqarlu na am na ay jafe-jafe moo tax euh, même boo demee ci verset pour wan la ni toujours xeex mënul ñàkk tuur deret mënul ñàkk mooy tilka rusulu na baaduhum ala baadin minhum man kallama allahu wa rafaa baadahum darajatin gis nga waaye bi mu ñëwee ci biir verset bi dafa ne aaya bi walaw sha allahu maqtatala alladina min baadihim bu neexoon sa borom day ñëw rek ñu def euh, masla laamisoo jàmm am waaye déedéet moo def pour ñu war a mën a xeex parce que xeex boobu mooy changer tendance yi lu waay am àdduna xeex la bu grand wala petite wala moyenne intensité il faut que nga nga ñefe donc mu nekk loo xam ne lu am solo moo tax mu ñëwaat avant muy jeexal aaya bi mu ne walaw shaa allahu maqtatalu walakin allah yafalu ma yurid bu neexoon sa borom kon du ñu reyante waaye yàlla mooy def li ko li ko euh, euh, euh, neex donc mu nekk ay jàngat yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel euh, fexe ba nga xamante ne ni dinañ jàpp ne ñaar yooyu dualisme yooyu ñooy ànd maanaam paix euh, ak ak jàmm ak ak ak ay ay ak jàmm li euh, nga xam ne yomba lu yomb noonu lay àndeek li nga xam ne moom mooy jafe-jafe inamal usri yusran boo delloo même ba ci suratul maida ci verset quarante cinq di ngay gis wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi gis nga mu ne da gis sax foofu aussi ñoom ñoo bind ci ñoom prescrire ci ñoom mooy ne ku bakkan bakkan bi bakkan a koy fay boo luqee bët bët a koy fay bu dee nopp nga dagg nopp ba la ñuy dagg bu dee bakkan la bakkan bi la ñuy dagg muy loi di talion ba tey mu nekk de faible intensité nous y avons prescrit pour eux une personne pour une personne pareil, œil pour œil, nez pour nez, euh, oreille pour oreille ex dent pour dent loolu dégg ngeen ko li nga xamante ne ni moom moo léeg sax dañ koy wax heure pour heure dent pour dent bu dee da ngay bëgg a répliquer donc loolu mu nekk loo xam ne benn genre philosophie la euh, boo xam ne alquran moo ko njëkk a euh, dégager yàlla subhanahu wa wax ko pour wax ni ñi ni munu leen dem nii di évoluer sans pour autant que musiba am moo tax gis ngeen ko euh, euh, nit depuis préhistoire dafa yàgg xeex waaw pour jot ay territoire pour jot ay ay ay ay ay ay ay intérêt loolu moo tax boo dee xool euh, li yàlla doon wax naan ne nit ñi benn la ñu woon ma dañoo dem ba mu yàgg commencé wute mooy ay intérêt yu wute intérêt yi wute yooyu nag mooy indi li nga xam ne mooy institution ci ci àdduna li njëkk a mooy tribunal parce que il faut ñu àtte nit ñi ci différent yooyu intérêt yooyu tu vois euh, gis ngeen état bu kayit ak ay euh, kii wu feer ak ak yeneen yu demee noonu yëpp mu bokk ci li nga xam ne mooy li euh, doomu aadama gis nga yàlla indiwaat wax ne munul ñàkk set contradiction dualisme boobu waaw antagonisme boobu walaw shaa rabbuka la jaala annaasa ummatan waxidatan gis nga bu ko neexoon mu def nit ñi ñu nekk benn communauté du am xeex du am ay contradiction mais contradiction yooyu mouvement boobu moom mooy évoluer le mooy progresser euh, l'humanité donc wala yazaaluuna muxtalifina mu ne nit ñi du ñu deñ di am ay différence parce que euh, euh, illaa ma rahima rabbuka lu dul ñi sa borom yërëm yaa ngi dégg waaye wali zalika xalaqahum sa borom sax ci différence boobu la leen euh, euh, euh, créer donc mu nekk loo xam ne lu am solo moo tax ci li nga xam ne moom la ñuy bëgg a wax muy histoire guerre gis nañ ne li nga xamante ne ni nag moo ko gën a avancé comme ni ngeen ko xamee mooy découverte scientifique yi nga xam ne ci vingtième siècle am na dem ba yóbbu ci li nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, euh, bomb atomique mu nekk loo xamante ne ni lu lu lu lu lu doy waar la nga xam ne loolu fu mu ñu yóbbu mooy ci perspective guerre nucléaire waaw donc fi ñu jóge woon nga xam ne ay xeer ak ay xeej ak ay bant ak ay yat ak yooyu lañ doon xeexe léegi dañu repenser waat li nga xamante ne ni mooy stratégie de guerre moo tax euh, lu mel nii nga xam ne tey ba mooy njobbaxtalu arme yu bees yi muy nucléaire dissuasion nucléaire euh, radaa euh, yi nga xamante ne nii mooy nucléaire nga xam ne bu amee ku ko am lu ñu tudde destruction mutuelle assurée moom day am maanaam ku ko dóor ci koo xam ne am na ko moom it mu jaar day fay donc même donc loolu déjà destruction la ci nit ki waaye aussi arme conventionnelle ci aussi am na ay risques yoo xamante ne ni mi ngi ci moom parce que xam ngee ne arme nit defaru ko pour rey ay kéwél wala rey ay ay ay ay ay ay ay ay ay girafe wala dem di rëbbi loolu taxul arme jóg arme nit ñi ñu ngi ko defar pour seen moroomi nit waaw pour seen moroomi nit gis nga li xew États-Unis nga xamante ne ni boo bëggee tere ñu fa xoolal dix mille et quelque par mois par année la ñu fay rey ci ay nit te bu ñu bëggee tere loolu da ngay gis euh, vendeur d'armes yi firme yi dañuy bañ parce que li muy dugal ci xaalis dafa bari gis nga foyer de tension yi nga xam ne États-Unis mu ngi koy tas dans le monde yooyu yëpp pour mën a jaay ay armement parce que industrie bu florissante la boo xamante ne ni li mu mën a indi ci koom amul leneen lu ko mën a indi donc ger yooyu dañuy gis ne dafay am conséquence yoo xam ne ci nit ñi parce que xam ngeen même xuloo sax entre clan wala ci li nga xamante ne ni moom mooy ci ethnie wala ci réew loolu mën na am ay jeexital yu graaw ci économie ci wàllu droit ci wàllu environnement ci wàllu genre parce que la plupart jigéen ñi la ñuy gën a rey xale yi ak mag ñi ak wàll ci wàllu production même artistique ak littéraire donc intellectuel loolu yëpp guerre mën na ko euh, euh, euh, indi moo tax guerre xam bi ñu xam ne mënul ñàkk waaye mu nekk euh, euh, euh, loo xam ne dafa ànd ak nit moo tax mu nekk de yoo xamante dañ ko indil ay règle maanaam ay règle juridique yoo xamante ne ni depuis ci bu njëkk ba guerre dafa amoon muy loo xamante ne ni ay règle ancienne la mais tacitement admise yoo xam ne dañ ko nangu ci guerre muy les lois de la guerre yi nga xamante ne ni sax tey mooy le fondement du droit international public parce que coutumier la woon gis nga publique moom la Nations Unies adopté bu njëkk ba euh, ku daw doo ko topp ku ku ku ku ku feebar doo ko doo ko koo gaañ doo ko àggale ak yeneen yu demee noonu nga xamante ne moral daf ko doon interdire guerre yi nga xamante ne mooy actuellement le droit international public daf koy interdire mais gis nga États-Unis ak Israël ak pays européens yi ñoom toujours moom la ñu yàgg euh, euh, violer donc gis nga mu nekk loo xamante ni lu doy waar la donc loolu nag euh, euh, nekk na loo xam ne euh, moo ñu yóbbu pour ñu gis ne donc loolu nga xamante ne nii mooy guerre yooyu maanaam buñ ko doon def ci jamono da nga doon gis malgré que dañ doon droit coutumier dañ ko doon utiliser pël yi niñ doon xeexe wolof yi niñ doon xeexe joolaa yi niñ doon xeexe Eh, eh, eh, njaago yi ñu doon xeexee bu njëkk ba li nga xamante ne ni gis nañ ko ci la littérature c'est-à-dire euh, mondiale ci wàllu guerre maanaam gis nañ ne évolué na lu bare bare bari bu njëkk ba ay ci arme branche blanche yi mooy maanaam lu mel ni épée jaasi wala ay lance xeej wala ay arc ak ay flèche yoo xamante ne ni dañ moom lañ doon utiliser toujours depuis ci préhistoire ba euh, euh, euh, ci jamono ba gën a récent armu yooyu nag dafa nekkoon loo xam ne léeg-léeg daf ci doon am ñu ci xereñ yoo xam ne ñu ngi ko doon defaree ak loxo loolu di évoluer après arme blanche muy jaas yeeg paaka yeeg ak yooyu illéer yi yooyu am na fi ak ay yet tu ak yu demee noonu mu am luñ ñu tuddee armu à feu muy maanaam pistolet gannaaw bi nga xam ne inventé nañu li nga xam ne mooy poudre à kano xam ngeen poudre à kano ñi ko njëkk a euh, euh, inventé c'est les chinois waaye ñi ko njëkk a utiliser c'est les musulmans waaw waaw muy les turcs donc mu nekk loo xam ne aussi beneen mbir bu am solo la donc arme à feu yooyu nga xam ne mooy maq doom ak yooyu moom lañ mooy moom la tuddee mousquet moom la ñu njëkk maanaam euh, commencé di utiliser loolu sax d'ailleurs moo gën indi li tax occupant occidental bi français bi wala britannique bi wala allemand bi bi ñu découvrir loolu daanaka te bu njëkk ba dañ doon xeex ak africains yi pour dominer leen donc ci loolu la ñu dominer sax africains yi parce que benn mousquet rek doom mun na mun na mun na euh, rey lu bari ci ay nit te doo leen jege sax donc donc loolu bi mu ci passé mousquet euh, yooyu am na canon kana yoo xamante ne ni moo gën a révolution nag changer li nga xamante ne nature maanaam yi doon utiliser ci wàllu euh, armement euh, conflit yi donc armement yooyu wala arme yooyu da doon permettre nga dóor à distance fekk da ngay sori dàndwaa ji euh, bu ko defee ni nga koy dóoree dafay daf koy mën a faagaagal sénégalais yi xam nañ loolu parce que wàllu njàmbaarte ñun ñoo gën a jàmbaar tubaab yi waaye gis nga utilisation boobu ñu def artillerie yi euh, canon yi ak euh, li nga xam ne mooy mousquet yi moom moo indi différence bi ba domination bi mën a am mën a am donc am na aussi ay artillerie yi loolu aussi gannaaw bi nga xam ne euh, arme blanche arme à am na artillerie yi mooy canon yi ak mortier yi ñoom it ñu ñëw ñu nekk élément yoo xam ne yu essentiel ci xeex yoo xam ne mën na faagaagal ki nga xam ne moom ngay xeexal waaye aussi euh, li nga xam ne dafa nekkoon ay tata wala yoo xamante ne ni yu mel noonu mën na ci jur ay pertes yoo xam ne yu massive après ci muy évoluer dem ba lu ñu tuddee le véhicules blindés muy am muy char de combat yi ak véhicules blindés yi comme comme ni ñu ko xamee euh, mbokka mbokki char de combat yi la yooyu aussi joué rôle bu crucial boo xamante ne surtout entre les deux si les deux guerres mondiales mooy 14 18. 39 45 nga xam ne dafay offrir protection ak puissance de feu mobile maanaam mën nga làqatu ci biir da dara du la laal nga mën a tiire jàkkaarloo ki nga xamante ne ni moom nga moom ngay xeexal donc bu loolu weesee gis nga aviation ñëw bi aviation ñëwee ñu koy utiliser d'abord lu jiitu mooy reconnaissance fan la troupe yi nekk waaw nekk pour ñu mën a bombarder mu nekk bombardement boo xamante ne ni bu ah, combat aérien amee ñu man ko ci utiliser loolu nag mu nekk ay changeant yoo xam ne dafa am ci la dynamique des guerres modernes maanaam ni nga xam ne noonu la guerre yu bees yi di amee aussi ñu commencé utiliser ay navires de guerre gis yooyu yëpp 39 98 39 45 muy navires yi muy les galères antiques euh, euh, cuirassés modernes yooyu allemands yi ñoom ñoo ko Euh, gënoon di utiliser donc mu nekk ay outils stratégiques yoo xamante ne ni dañ ko doon def pour maanaam contrôler les maires donc mu nekk loo xam ne loolu nit ki toujours gis nga ci biir guerre la commencé évoluer waaw ci la ci la commencé évoluer loolu nag moom moo dema dema dema dema dema dema dem ba jur lii nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, lu mel ni comme missile yi ñuy sànni parce que xam ngeen missile V1 V2 allemand yi ñoom ñoo ko créé waaye biñ koy créer ñoom c'était pour que ñu mën a mën cee xeex waaye ñoom dañoo dem ba ci biir ñu koy commencé utiliser pour ay satellite moo tax mu nekk loo xamante ne lu am solo aussi ci ci ci guerre parce que dalay lay permettre satellite nga mën a comprendre yu bari te yëpp gis nga mi ngi jóge ci tey satellite de communication yi yi nga xam ne day kii ci wàllu agriculture euh, yi nga xam ne ci wàllu médecine ci wàllu énergie ak yu yëpp gis nga loolu mooy njëriñam te loolu yëpp mi ngi jógee ci guerre télescopie oto euh, yooyu yëpp télé télé télécommunication yi télégraphe yooyu yëpp téléphone yooyu yëpp ci guerre moom moo tax mu ñëw donc lu baree bari tey lu humanité am lu ko ko may mooy guerre mooy conflit maanaam yi nga xamante ne mooy am moo tax boo demee boo paasee li nga xam ne moom lañ doon utiliser ci li nga xamante ne ni moom mooy euh, guerre yi ak euh, technologie bu yàgg ba léegi nag dafa am nouvelle technologie yoo xamante ne moo transformé profondément conflit armé moderne yi lu ci mel ni cyber attaque bi nga xamante ne ni comme wax naa ko sànq muy cyber attaque bi nga xamante ne ni moom la euh, kii subir muy Hezbollah Pager nga xamante ne système de euh, euh, de bip la télé avertissement muy rajo messagerie boo xam ne service am dalay lay permettre nga mën a envoyé ay message rajo waaye aussi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor di ko utiliser et maanaam que euh, maanaam équipé wu pageur mu nekk bipeur donc fonctionnement waxoon naa ko ci bi weesu mooy day recevoir ay message ci daf di ko awale ci ay fréquence rajo message yooyu nag mën na nekk numérique muy code chiffré wala alphanumérique yoo xam ne court texte lay doon maanaam lu mel ni comme SMS yoo xam ne bu la neexee euh, euh, boo ko jotee rek man nga euh, maanaam dafay alerter ki nga xam ne moo koy utiliser donc soit daf koy def par sonnerie wala bip wala bipe ko wala mu nekk vibration wala clignotement donc mu nekk loolu aussi loo xam ne depuis 1980 lañ ko gën a développé waaw mais depuis loolu amoon na technologie boobu donc utilisation comme lu mel ni pager dafa nekk dañ koy utiliser ci environnement yoo xam ne amul communication maanaam communication bi dafa faible dafa fiable waaw waaw te essentiel te aussi du ñu utiliser téléphone waaw comme hôpitaux yi service d'urgence yi entreprise yi ah, euh, kii les force de sécurité ak de défense gardiennage lépp luy sécurité rek mën nañ ko utiliser donc mu nekk loo xam ne lu ama ama am ama ama am solo donc pageur boobu dafay joxe couverture étendue boo xam ne ci wàllu maanaam fiabilité bu élevé du am interférence parce que tellement que dafay am doole te message yi dafay jàll donc capable nañu fonctionner indépendamment ci réseau public yi lu mel ni comme Orange lu mel ni Expresso bu dee dañuy wax Sénégal wala euh, Tigo te aussi dafay euh, euh, maanaam Euh, euh, utile trop trop bu fekkente ne réseau bi mu kenn mënu cee jàll moom moom mi nga xam ne moom mooy bippeur boobu def ci dem marque yooyu nag ci Sénégal ñun yiñ ci gën a xam moom mooy Motorola waaw Motorola xam nga ñu ngi ko créé depuis 1964 waaw mu nekk ci ci yi nga xam ne mooy bokk na ci premier bipeur yi ak tam-tam ak taato ak kubi donc li nga xamante ne ni moom moo dal xizbullah mu nekk loo xam ne lu doy la waxoon nañ ko ci pàcc bu njëkk ba nga xam ne benn kiiw japone moo euh, taïwanais moom moo koy defar waaye dafa jox licence bi benn société bu hongroise hongroise boobu nag moom moo liggéey ak waa CIA ak Mossad def ci ay explosif yoo xam ne vingt euh, grammes la te gis nañ ne Hezbollah moom lay utiliser te à peu cinq mois de cela commandé woon nañ ko ñu profiter ci pour euh, def ci loolu nga xam ne au moment opportun dina mën a tàkk moo tax actuellement guerre yi nga xamante ne ni ci lañ nar a jëm mooy euh, euh, yii guerre maanaam guerre cyber attaque waaw boo xamante ne ni électronique waaw guerre cyber attaque yoo xam ne dafay indi cyber opération yoo xam ne dafay dimbali. Eh, maanaam ñi nga xamante ne ni ñoo ci nekk di guerre ñu perturber infrastructure critique yi mooy maanaam yi nga xamante ne ni yu waaw wala sàcc ay information yu sensible wala sax influer ci l'opinion publique léegi cyber attaque loolu lay dem donc mu nekk première chose yoo xamante ne ni euh, euh, euh, mën na produire juste ci première hostilité yoo xamante ne ni nar na am entre ñaari dëkk moo tax kii nga xam ne moom mooy Netanyahu bi mu nee ñoom ñi ngi préparé wu pour pour dem au nord euh, euh, euh, gis nga lii lañ doon wax lii lañ ci jublu woon pour li jiitu mooy cyber attaque boo xamante ne ni op cyber opération lay nekk bu ko defee dina mën a paralyser appareil yu Hezbollah te Hezbollah bii sax ñi ci gën a bari ci ay responsable am moom la ñuy yor. waaye eh, eh, eh, heureusement nekkul loo xam ne malgré cela ay civil la gën a attaqué que militaires yi moo tax gis nga ni actuellement ñu ngi continuer seen i attaque kii wu leen dara parce que Israël dafa yaakaaroon ne dina mën a aveugler maanaam dina mën a réeral lii nga xam ne moom mooy Hezbollah ci tentative yooyu ba nga xam ne dootu ko mënati attaque au nord donc loolu nag mu nekk. Euh, euh, loo xam ne moom la euh, Israël jublu woon waaye gis nga ko pour mu mettre hors service communication Hizbullah y compris li nga xamante ne ni c'est satellitaire wala leneen ci Hizbullah waaye gis nga munu ko mu nekk loo xamante ne ni lu ama ama am solo xam ngeen actuellement cyber attaque yooyu mën na couper ay câble même Euh, sous-marins yoo xamante ni vitaux yi nga xam ne dafay transporter ay données suñuy téléphone sax yi ñu yor nii euh, mun nañ jékki-jékki rek mu bañ a fonctionner ti station de service yi cyber attaque bu amee man na euh, asséché wala li nga xam ne mooy distribution wu nourriture waaw maanaam indi indi dëkk ci kaw waaw maanaam station service yi wala wala dë yi nga xam ne dañuy distribuer ay nourriture lekk ak yooyu dootuñu am seen système dootul demati bu ko defee mu indi kaw donc donc loolu moo tax superpuissance yi actuellement muy États-Unis Union soviétique Russie Iran ñi ngi ci bu baax a baax di def waaye euh, kii di Russie ak Chine ak Iran ñoo ci raw États-Unis ak euh, Grande-Bretagne bi ci tegu France aussi ak euh, Allemagne parce que ñoom ba léegi seeni i texte texte yi test yi nga xam ne moom la ñuy def ci ci loolu euh, c'est pas euh, euh, concluant comme bu union soviétique malgré que nag de de de d'investissement massif ñu ngi koy def ci domaine boobu donc moo tax gisoo lii nga xamante ne ni moom moo am te ñu gis ko démb mooy capacité bi nga xamante ne guerre électronique mën na ko am pour brouiller même satellite yi ak interrompre communication yi te loolu la Israël utoon démb mais rétablir nañu yenn yi ñi nga xamante ne ñoo yor woon genre bipérieur yi ñu ne leen nañu ko bàyyi donc loolu euh, euh, li Israël bëggoon àggu fa donc loolu ci jëmu boppam euh, boo xoolee super attaque li ci gën a bari les sites critiques vito walla yu militaires ci société yi euh, euh, euh, ñoom ñooy cible de soi yi nga xamante ne ni mooy cyber attaque waaw donc mu nekk loo xamante ne ni actuellement le plus grand danger militaire bu fekkente ne ni escalade non planifier am na cyber attaque lay doon moo tax actuellement xam-xam dafa avancé évoluer mën nga toog presque à mille kilomètres ngay ngay deux mille gis ngeen missile super hypersonique bu Yémen bi dem foo xamante ne ni ñi ngi koy yónni duñu ko gis moo tax bu ñu demee ba nga xam ne cyber attaque dafa am ba suñuy euh, li ñu tuddee satellite mënatuñu communiquer seen boor ce qui que planificateur yi nga xamante ne ni militaire euh, stratégie yi nga xam dañu toog ci seen bunker de commandement ñooñu dañuy am problème donc donc dootuñu amati maanaam ay données yoo xamante ne ni dana leen mën a permettre ñu àggale seen liggéey waaye dafay nekk de dans une situation extrêmement euh, difficile boo xamante ne ni pour calibrer li nga xam ne moom la ñu bëggoon def léegi bu ñu paree ci li nga xam ne mooy euh, euh, drone yooyu am na lu ñu kii li ñu tuddee attaques yooyu am na lu ñu tuddee drone ak robot armé léegi armée yu bees yi loolu la ñuy wax dañ koy utiliser pour la reconnaissance waaw waaye aussi frappe ciblée dañuy jékki-jékki drone bi def ko drone suicide gis nga ni Hezbollah di def di ko envoyé dina am aussi ay mission de surveillance comme Hadahid yi muy Houthi 1 Houthi 2 Houthi 3 mu yóbbu bu ko defee mën a planifier photographier filmer yëpp appareil yooyu nag euh, euh, dafay tax militaire bi nga xam ne bu njëkk ba moo doon dem di di filmer di def reconnaissance ak espion yi di xool fan la troupe yi daje seen stationnement seen cantonnement loolu day gën na yokk maanaam moindre gën a réduire risque soldats yi ci seen jëm bopp sur le terrain ñuy ñu ñu ñu ñu ñu ñu exposer seen dund te loolu dafay gën a joxe opération maanaam efficacité ci seen opération muy drone yi ak robot yi am na aussi lu ñu tuddee zaka istinaa yi muy intelligence artificielle IA IA xam ngeen ko actuellement dañu koy utiliser lu baree bare pour muy analyser ay quantité yu baree bari de données yoo xam ne dañ ko améliore ak précision ci arme yi nga xam ne wala di développer ay système yoo xam ne autonome la yoo xam ne dafa capable di jël ay décision en temps réel donc loolu dafa nekk lu am solo AI loolu lay loolu lay utiliser te bi ngeen xoolee yooyu yëpp yi ci gën a bari euh, origine bi Euh, euh, euh, ci ci ci ci ci muy ci algèbre muy ci mathématique ah yooyu yëpp physique quantique yooyu yëpp ci musulman yi ñoo ko njëkk a développé xam ngeen ibnu al haysam xam ngeen jaabir al xayaan xam ngeen kii nga xamante ne ni moom mooy haysan comme ni ma ko waxee ak ñu bare bare bari ñoo ñoo xamante ne ni ay borom xam-xam la ñu te tey Occident bu amee yenn connaissance yi ci ñoom lañ ko jëlee donc intelligence artificielle boobu muy zaka istinaa yi dafa nekk benn unsur boo xamante ne ni dafa mën a liggéey muy maanaam facteur boo xam ne bu majeur ci guerre yi nga xamante ne actuellement ci la jëm parce que mën na accélérer à temps réel des décisions ak réactions yoo xamante ne ni des commandants ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci la amaliyat muy les chambres de de d' opération dina leen permettre aussi ñu mën a traiter ay informations euh, beaucoup plus rapidement aussi mu am beneen troisième bi muy arme hypersonique mooy comme bi nga xam ne moom la yéménite yi utiliser woon barkaati démb contre Israël mu jaaxal leen trop xamuñu fu ñu jëm nga xool seen système de défense yi muy muy caat muy muy muy muy muy patriote muy euh, doom de David euh, doom de kii euh, de fer amu ci benn bu gis maanaam ñëwam waxoon nañ leen fii bërki démb li nga xam ne mooy dooleem nga xam ne actuellement Occident ci jëmu boppam dafa am ñëpp xam nañ loolu muy analyste militaire yi nga xam dañuy topp wàllu armement évolution yi ak situation de conflit yi nga xam ne géopolitique géostratégique dafay am gis nañ ne Russie yi ak Chine ak Iran ñoom ñoo ci raw Occident maanaam Amérique ak ñi nga xamante ne ni ñoom la àndal te ñaari réew ñoo ko mës utiliser actuellement dans le monde moom mooy Russie ak Kingel yooyu nga xam ne moom la yor ak Yémen donc Yémen mën nañ ko dugal à partir de maintenant ci club boobu nga xam ne ak accédé na ci technologie ci hypersonique de fabriquer des armes hypersoniques te nee nañu ñoom waa Yemet li ñu jenc moo gën a graaw li nga xamante moom la ñu war a donc hyper arme missile hypersonique yooyu dafa nekk ay projectile maanaam yoo xam ne ay jumla la yoo xamante ne suralimenté yoo xam ne dañ koo roxkos ba mu baax yoo xam ne mën na daw vitesse boo xam ne ci en en cinq mm cinq 27 fois la vitesse muy mille 6800 et quelques kilomètres par heure waaw du son vitesse est transporté aussi ay ogive muy maanaam bopp bi mën na nekk conventionnel wala nucléaire xam nga donc loolu lu tiitlu la donc Russie sax ci jëmu boppam moom bu ngeen dee xool ci armement yooyu annoncé na ay réussite ci essai yu bari yu mu def lu mel ni zircon yéen a ngi koy dégg diggante moom ak euh, kii di Ukraine euh, euh, te zircon boobu. Euh, euh, euh, mën na déjouer système de défense yi nga xam ne yëpp yu monde bi la yu OTAN yor am na aussi comme niñ ko waxee sànq muy kii di Chine Chine am na bi aussi bu tudd hypersonique Dongfeng 17 moom it dafa équipe ci benn planeur hypersonique boo xam ne depuis 2019 la ko créé mu nekk loo xamante ne ni mën na transporter véhicule boo xamante ne euh, euh, de glissement boo xamante ne hypersonique ñu koy tuddee VGH waaw moom it mën na manœuvrer ci atmosphère bi avec euh, une trajectoire boo xamante ne presque invisible donc il est maniable ce qui le différent à l'inter mu jafe maanaam jot donc test yooyu nag wane na ne actuellement Russie ak Chine ak Iran ak yemen ñoo ci raw Amérique loolu ñëpp ci d'accord ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, euh, toppatoo wàllu militaire dans le monde muy Occident wala Russie wala yeneen bloc yi donc test yi nga xam ne le système américain mu ngi koy def ñi ngi gis ne ñee nañu yenn yi sa concluant mais ba tey concluant wul ñenn ñi waaw donc armement yooyu nga xamante ne ni moom moo ànd dugg ci armement wu Russie wala ci Chine euh, euh, euh, fi mu nekk nii amerique fi mu nekk nii balaa moo attaque Russie wala attaqué ki nga xam ne moom mooy Chine wala Iran surtout bu ñu demee ba Chine wala attaqué pour nangu Taïwan Amérique dina ko seetaat ñaari yoon ba ñetti yoon ba ñeenti yoon parce que li mu yor armu yu bees la te Amérique àggagu ci am na aussi ay technologie spatiale mooy ay satellite yoo xam ne dañuy jouer rôle bu am solo bu crucial ci wàllu communication militaire waaw ci wàllu navigation bateau yi sous-marin yi yooyu yëpp nu ñuy demee ak seen surveillance nga xam ne dafay joxe avantage stratégique yu significatif ci armée yi mais malheureusement boobu bi Yémen di dóor gis nga mooy feddaliwaat ne gis nga li li li euh, euh, euh, navire de guerre yi am yu américains yi seen porte avions yi seen sous-marins yi seen satellite yooyu mënalul dara li nga xam ne mooy euh, euh, missile hypersonique yi nga xam ne moom la Yémen door donc pour walla ne retard bi nga xam ne Amérique am na ko ak l'OTAN ci devant la Russie la Chine l'Iran ak euh, le Yémen technologie yooyu nag dafay poser un défi muy taxaddi boo xam ay taxaddiyaat yoo xamante des défis humanitaire et juridique taxaddiyaat insaniya wa qanuniya yoo xamante ne ni ci wàllu protection civile waaw maanaam euh, euh, nit ñi nga xamante ne guerre ñu duñu militaire ay jàmbur lañu nit ñi waaye aussi le respect du droit international humanitaire maanaam li nga xamante ne ni moom mooy al ixtiraam euh, lil al qanun ad duwali al insani donc mu nekk loo xamante lu am solo moo tax arme intelligente yooyu boo dee xool actuellement mooy futir guerre bi nga xam ne moom la ñuy préparer donc moom mu nekk nag un changement fondamental ci politique de défense ak de sécurité yi nga xamante ne ni mooy réew yooyu donc loolu mu nekk loo xam ne lu ama ama am solo moo tax euh, pour conclure da nga gis ne donc guerre musul bañ a ñàkk Euh, yonent yi geer nañu euh, euh, dëkk yi geer nañu loolu yëpp pour am jàmm parce que pour nit ki pour mu am jàmm même gisoo ku la yeb waaw bu fekkente ne ni jógoo rek nga won ko ne am nga am nga wextan boo moytuwul ci sa bopp bi la jëm moo tax fulaay da jaay daqaar lu ko may ma mos jeexal ko moo tax nit ki dafa war a war a am fulla gis nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa xeex waaw dafa xeex pour dindi euh, euh, euh, yebeel yoo xam ne dañ ko ko bëggoon a teg mu ne moom du d'accord ci loolu moo tax moom c'est un homme complet loo soxla ci moom rek ci référence nga xam ne nit ki daf koy aajo wo moom mooy première référence moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi te moom bu ñu dee xool ci grand stratège de l'histoire yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk a nekk parce que moom moo doon jiite ci jumaa ji waaye moo doon jiite guerre yi mooy joxe plan yi gis nga plan wu Uhud bi mu ko joxee ne leen yem leen ci ci ci ci montagne bi ñoom ci jëmu boppam ñu wàcc dindi li nga xamante ne ni moom mooy ndigalam gis nga Xaalid ibnu Walid daf leen wane ginnaaw faagaagal leen donc loolu mu nekk loo xam ne histoire ba Coran di ko indi donc mu nekk un stratège militaire bu mag a mag waaye bu doon doglu aussi gis ngeen ci xandaq muy muy les tranchées euh, bi ko Salman waxee nañu nañu muy ahzab def ay ay ay ay ay ay tranchées ay pax gis ngeen pax yooyu Iran ba léegi actuellement technologie boobu daf koy exporté parce que lu yàggoon la ci ñoom parce que peuple bu yàgg civilisation la bu yàgg xeex moo tax am na ci sax bu njëkk ba ñoog turki yi buñ doon xeex léeg-léeg bu amee kii léeg dañu doon jël euh, ay lu mel ni rivière déeg euh, euh, euh, sànni ko ci ci ci ci ci ci dëkk bi ñuy xeexal waaw pour rek mu inondé tuufaan am fa ñoo ñu ñoo ñu dee pour won la lu doy la moo tax bu njëkk ba même dans l'histoire bu ñu nee diw dafa soxor dañu naan perse la walla corse waaw perse wala corse dañu naan ñoo gën a soxor surtout ci wàllu xeex moo tax am na ci de grands stratèges yoo xam ne lu mel ni Ali ibn Abi Talib nga xam ne ñi ngi jàng ci moom stratégie militaire tey waa Hamas waa jihad islamique waa Hezbollah waa Iran doctrine boobu la ñu yor waaw bokkul ak doctrine West Ham euh, bi nekk euh, États-Unis wala Sanders bi nekk Britannique wala Saint-Cyr bi nekk euh, France parce que léegi sax ñooñu seeni étude ak seeni programme fi mu nekk nii jamono weesu na ko waaye comme ñoo yor wax yi waxukaay yi dañoo bari wax moo tax euh, euh, euh, seen mbir mu xaw a doy mais également am na ci yeneen civilisation yoo xamante ne nii yu yu yu yu am solo lu mel ni Sun Tzu Sun Tzu auteur mooy auteur livre bi nga xam ne moom la ñu tuddee l'art de la guerre waaw nga xamante ne ni ses enseignements sur la stratégie militaire ba léegi ñu ngi koy jàngale ci grande école yi tu moom mu mu nekk koo xam ne euh, chinois la woon mais ku ci xarale ci wàllu xeex am na aussi Alexandre le Grand mooy mooy mooy mooy euh, euh, ki nga xam ne moom lañ tuddee Zulqarnayn tu tiwa nga xam ne macédonien la woon ku mag a mag ci wàllu guerre defoon na ay campagne yu mag yoo xam ne dafa changer le monde antique boo bu mag a mag ak Napoléon Bonaparte aussi xam nga Napoléon Bonaparte aussi tey la vision maanaam France tey bu changé Napoléon Bonaparte moo ko changé ci lu bari moo indi administration moo indi code civil euh, code code euh, kii euh, pénal français mu inspiré ko ci fiq Malik bi nga xam ne ñun bu Sénégal moom la ñu yor donc même sax ñi ngi naan jullit la woon tuuboon na wala tuubul ñenn ñi ne tuubul waaye li gën a leer mooy ne tuub na parce que fiq beek ak yooyu yëpp tey moom moo ko def et ci ci système de collect ci li nga xam ne moo doon impôt yi effort de guerre yi ci moom la jógee numérotage yu ay rue yi ci en France ak yooyu boo jàngee littérature française yooyu yëpp dañ la koy jàngal am na aussi ku mel ni Jengin Xaas euh, Jengin Xaan mu nekkoon fonda fondateur mu assis al al al al impérial euh, ki euh, al mongolia mooy maanaam empire mongol nga xamante ne ni moom it ci wàllu stratégie ay militaire euh, def na ci novatrice yoo xam ne yu bees yoo xam ne pour gagner dëkk yu bari ci Europe ak ci Asie bool bokk na ci Iran Afghanistan ak euh, euh, Mongolie dara ak yooyu yëpp daf ko kii woon am na Karl von Clausewitz moom it théoricien bu mag la militaire boo xam ne allemand prussien boo xam ne ay bindam ci wàllu guerre Euh, influencé na lu bari la pensée militaire occidentale donc stratégie yooyu toujours da nga leen di gis euh, euh, ñoom ci seen jëmm bopp ci wàllu militaire yooyu ñu doon def ci wàllu ay pexe muy pexe muy stratégie ci la ñu atteindre seen objectif ba mën a changer le monde te loolu li koy indi moom mooy seen vision seen position yi importante yi nga xam ne moom la ñuy am yu crucial nga xam ne tey histoire militaire mënatu ko mënatu ko changer donc mu nekk loo xam ne lu ama am solo euh, donc loolu lañ leen bëggoon a euh, euh, indil ci li nga xam ne mooy guerre li ko indi maanaam les jumtukaay yi doon guerre bu njëkk ba ak yi ñuy tey ba bokk na ci yu tey li nga xam ne moo xew fii di Liban Israël def ci lu mel noonu te dorénavant dootul dakkati guerre technologique yu bees yi euh, moom mooy transformé ji incha allah conflit moderne yi te dañ koy utiliser muy euh, yi mu tudd muy intelligence artificielle muy muy nucléaire bi muy muy euh, yeneen yi nga xam ne yëpp tudd naa ko di leen santaat bu baax di leen gërëm di leen jox daje incha allah ba beneen ci kàttanu sunu borom.